ngoog comme ni ma ko waxee léegi rek ñu utale tunikaay ànd ca Grégoire Ngom Grégoire ana lan moo gën a fës ci li nga xamante ni loolu la ñu xëy fësal tey. bokk na ca Aïcha dogalu ko njiitum réew mu yes mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ca tëkk suñu jantub réew Le Soleil yéenekaay xëy na ne ko fàng ci xëtam njëkk ca conseil des ministres àdduna fa jëmale ci la mu bëgg rek ci réew ko Sénégal yéenekaay bi nag xëy di ñu xamal ni. bokk na ci nag loo xam ne waxtaan na ci kay jorinam ci kilifteefu ko seen ak njiit di Ousmane Sonko dogal yu mag yi li nag bokk na ci jamono ji rek daal di fësal ay rapport ko juróomi at yi nga xam ne ni ñoo nekk suñu ginnaaw loole nag ñeel na loole di cour de comptes IGE ak loole di OFNAC bokk na ci itam samp ab bureau d' intelligence boo xamante ne ni dana gën a sàkku ci lépp loo xamante ne ni moom moo ñeel leeralu ñeel wàllu ko koom ci réew ko Sénégal bokk na ci damit lépp loo xamante ne ni moom mu ngi koy waajal mu di ay conseil interministériel la enquête yéenikaay na mu ko euh, waxee rek nee na nag Bassirou Diomaye jamono ji daal euh, moom ma ngay saytu bu baax a baax daal yori nag euh, ki mu fi wutu dal di Macky Sall bu ñu koy xayma rapport yi lépp ma ngi leen di sàkk waaye lépp loo xamante ne ni bëgg na ko daal moom mooy ñu taxaw ci dossier boobe ñeel chantier naval yu Dakar nave bokk na ci daal coow la nga xam ne ni tax na a ngi xeeñ fu nekk foofee ñu ko nemmeeku bokk na ci tam loo xam ne le tam moo yéenikaay xëy na ne ko fàng yori nu ko réew mi Bassirou Diomaye bi ma ngay teg jéego bokk na ci daal loo xam ne ni yéenekaay bi ma ngi ko koy seddeel fi ñu toll ni diggante atum 2019 2020 ba ci atum jàppale nag ne publication rapport des comptes ak li nga xam moom mooy IG ba lépp moom njiitu réew ma ngi koy sàkku waaye tamit ñu sëgg rek ci situation mi nga xamante ne ni euh, ñeel na loole euh, di Dakar naar bokk na ci dam la nga xam ne daal bëgg na ko ci leeral mu di ñu xoolaat bépp projet ak contrat bi nga xamante ne ni ñeel na secteur ministère bi jëm ci wàllu ko géej gi ak mbiru ko port boobu ñu sukkandiku ci suñuy nattango Vox Populi yéene kaay moom ci xëtam mu njëkk nag ne na jomaay bàyyiwul dara fépp mu ngi fay xool ba xam daal ndax amut ab mbóot buñ koy jël rek te ji ci tugg yëglekaay bi dàkk IGE moom lañu rek daal di sas liggéey bu ni mel secteur ko ndox mi tam dàpp leen ne ñoom ñëpp daañu leen déglu ngir xool daal ana fa yëf ya mujjee sona seen o ñëpp ñu ngi leen cay lim bu tam ab ciblage la boo xamante ne daal jamono ji jotoon nañ leen ko dénk ñoom waa SONES ak JICA lépp ci lu jëm ci usine de dessalement ba bu ñu sukkandikoo ci Vox Populi ay yéenekaay ya L'Indépendant moom la mu xëy daal ne fàng bokk na ci moom ci coowal conseil des ministres bi daal la yilee ko dogal ak rapport yi ñuy sàkku mu mel ni BDF moom Bassirou Diomaye Faye daal mu ngay sulli yilee ko rapport la ñu ko yénnikaay bi di xamle ci wet gi Ousmane Sonko moom la ñu ko sas daal mu di ab national mi nga xamante ne ni ñoom jàppale nag ni fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ko la ñu fas yéene rek bëgg a lu ni mel la machine ba taal nañu ko tàmbali na loolee l'info yénnikaay moom moo koy nettali na gën a tey ji xëy na nag ne leen fàng ñoom ñaari kilifa yi nga xam ne daal ñoom ñoo gën a bés ci bopp ko réew mi moom gisu réew mi ak élimaanu jëwrin yi tey ji daal lañu ñu fay waxtaane moom mooy la ñu bëgg rek nañuy def comme ab liggéey audit ya tàmbali nañ ba ca boruka dipi wol jàpp boruka euh, ndaayaan Dakar naaf yéenikaay bi nañu ñoom ñaar ñi bàyyi bàyyiwuñu dara ginnaaw naka ba mu sàkkoo ci moom rek ñu sëgg ci mbiru ko justice laata fukki fa ak juróom ci weeru mai ab projet de loi nag ci lanceur d'alerte ya tam ñu ngi koy waxtaane Bassirou Diomaye Faye daal di xam ne nag ni faw ñu amal euh, at bu nekk rek ab mission de contrôle boo xamante ne ni daañu ko amal ci euh, yilekk euh, loole euh, di ay institution constitutionnelle la libération yéen i moom la mu ca dëxañte ji nag nee na ñi nga xam ne daal ñoom ñooy yëngu ci njuut njaaj yëf yi dana tar lool ci ñoom jamono ji ñu toll ndaxte lépp loo xamante daal def nañu ko daañu ko saytu ba fa mu yem bokk na ci daal la ñu koy xëy rek tey ji ah, dina fàng ci seen ak xëtu njëkk yéen i sax desandi ci loole di ñu xamal daal ne ñaareelu ko ndaje la ci biir conseil des ministres waaye jamono ji dafa mel ni daal lépp la ñu bëgg leeral la aéroport international Blaise Diagne tam bokk na ci pëccoxoo ga ñu fay waxtaanee ak société turque yi nga xamante ne ni moom mooy Limak ak Suma ñoom ñëpp mu mel ni daal nee nañu fàng seen ak mbir wutali Dakar Nav port autonome bu Dakar jàppale nag ni jamono ji concession ba ñu ngi koy waxtaanee ak nañu koy yeesale ARCOP mu mel ni daal moom daqal na attribution ba bu ñu sukkandikoo ci ni daal moom mooy Maritalia ñoom am nañu ndam ci la ñu doon sàkku njiitum réew mi di moom bëgg na nag jamono ji leeral gi daal di cay jib bu baax a baax loole tax na Direct News yéen i kaay ne ñu dëgg feeñ na xëy na daal di ko waxtaanee immeuble ba nga xamante ni daal daal moom moo yor benn pàccu ko personnel ba ca port contrat location ba moom xayma nañ ko ne Babacar Sadikh Bey moom moo ko xaatimoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2018 ba mu yegsee ca port ba moom Mountaga Sy nag tax naka taxawaloon na rationalisation ba ci wàllu ko ressource ba pare noppi rek baral lépp loo xamante ne nii moom mooy liggéeyu ko la ko yooyee ñu dénkoon Bamba Ndiaye mi nga xam ne daal mooy contrat ba ñu signé Euh, ci euh, laata mu faa yegg si jàppale nag ni moom sax ñu daal di woon a dut baaraamu tuuma ne ngeen ni ay yéexite ci wàllu ko liggéey ba ak livraison ba Bamba Ndiaye daal di woon a engagé wu daal di livré bi lekk immeuble mille vingt 2024 fayooru ka euh, première lépp loo xam ne tam mu nga ca suuf daal loolee lépp ñu ngi ko fay naqarlu naqar Manchester City am na ko démb ca biir Etihad Stadium tey ji stade yéenekaay xëy na ko fàng rek ci xëtamu njëkk nañu nag Real Madrid ca biir guddi ga def na ko ca teg dóor ya daal la ñu jaar daal di wutali demi-finale ya daan nañu équipe bu Pep Guardiola jamono ji nga xamante ne daal Bayern Munich tam nax na Arsenal ba daan ko benn bal ci dara. naxante Balla Gaye 2 ak Tapha Tine loolee mbëbët nañu ko ku ci nekk daal di ko waajal sa morom waaye daal laaj bi sampute ji mooy ànna Balla Gaye 2 fan la war a mën a jaar tafaatin ndax jotul sax mu tiit moom Balla bu gisee jëmm jile bu ñu koy xayma jàpp leen daal ne tafaatin Tine moom wane na daal xarkanam bu ñàng boo xamante ni ni dafa mel ni daal moom fi mu ne nii caaxaan jeex na dëgg rek a des la mu bëgg daal moom mooy teg tànk ci kaw Balla Gaye 2 lu ci mënti am géew gee ko fas yéene leeral ay caawa yi laata loolu rek lii mooy lu téye ni kay xëy fësal ci bés bu tey na solo mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam euh, Grégoire Samagom ñu ngi lay jaajëfal. sant ak ngërëm ñu na la yow tamit. maa lay souhaiter nga passer une très belle journée. ñu yendoog jàmm. merci beaucoup.